Euh, Serigne Cheikh Fall dana dikk ak nun ci màggal euh, ni ñu koy defee léegi euh, màggal ni ñu koy defee léegi waa waaqia bi dëppale ko ak xool ba xam dëppoo naag na ko Serigne Mouhamadul Moustapha doon defee am déet danañu ci dikkal incha allahu taala mu mel ne Serigne ma boo nuyoo rek ñu dikk ci laaj bi.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 mbokk yi asalaamualeykum wa taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokki jullit yi bokki talibe yi di jiital ci nuyoo bi kilifa yoon wi cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan sun borom dolli koo sàmm dolli ko aar ba li mu yéene liggéeyal yoon wi sun borom defal ko ci lu kawe njortam barakatu cheikhil xadim di nuyu jëwriñam ji ko nekkal fii di sëriñ Ahmadul Muxtar ak mboolem njabootuk cheikh Mouhamadul Moustapha gépp leen ñaanal tawfiq ak taysiir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 wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayyidina muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sabiri wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki julli mbokki tali bi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu jiital ci nuyu bi ak ziar bi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan ko yàgg fi lool ci wér waaye noonu ñu ko ñaanale borom pàkk bi di Cheikh Ahmadul Mokhtar waaye di ko ñaan njaboot Cheikh Xadim gépp suñu boroom yàggal leen ci kanamu njaboot gi waaye njaboot gi yàgg seen ginnaaw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 dangaa ngaa fanaane wërël rek comme ni ko si nga xam ne boo demee si sëñ Moussa Ka ngi koy leeral ndax moom dafa mel ni boo dégloo ay waxam maanaa jëmmi li xew ci jamono leeral na ko ndax daa waxoon ni déglu moo moo waral li waral màggal gi ak bis yu màggal ak bis yëpp yoo am si a màggal wax ni bu leen di màggal guddi ngir ngir ba gii dërëm waaye na ngeen di màggal guddi ngir ba gii ngërëm kon day mel ni jamono jii nag am nañ fi ni seen màggal lépp mooy bëgg dërëm la waaye màggalu ko ngir ngir ngir bëgg ay ngërëm wax ni waaju màggal guddi tuddee ko ak noos suufeel na yàlla waaye ba malaa ko ne ko noos maanaam comme si guddi màggal gi ak noos nga ko tuddee suufeel nga yàlla waaye nag na nga xaar ba ëllëg ba dajeeg malaaka te ñu bare bare guddi màggal moom noos lañ ko jàppee mooy lekk lu neex wëreelu ba samaan set